te su fekkoonte ne ni yàlla bind lépp lépp ajmao dañoo dajaloo ala matlabin ci kaw benn càkkutéef ñu bëgg ko ñoom ñépp ñu daje ci loolu doona woo ñu génnee ci yàlla mastatam du sotti mukk nga dégg ci contraire ba su ñëpp daje woon bëgg génnee dara ne bu mu fi amee te yàlla ni na fi amee loolay am Cheikh Hadj Abdoul Aziz Sy radiallahu anhu bii fi jóge ci téeréem bi ñuy wax sullamul murid nee na yàlla nekk fi di dogal rek ma nekk fi di kontaan rek wa kullu ma qadarahu alqadiru narda bihi fa innahu jadiru nee na yàlla nekk fi di dogal rek ma nekk fi man Abdoul Aziz di kontaan rek wa kullu ma qadarahu alqadiru lépp loo xam ni aji attan ja di yàlla dogal na ko narda bihi nee na danaa gërëm dogal boobu daanu ca kontaan fa innahu loola jadiru yey na yàlla du def lu jaaduwul te loolu bàyyam Sidi Xaaj Malik moo ko jëkk bind Sidi Xaaj Malik moo jëkk ni taraktu ilahi i'tirad alqada li ajliba minka alrida birrida فما منك إلا الجميل الصنيع لأن الجميل جميل القضاء فكيف اعتراض ذليل حقير برب كبير جميل القضاء Sidi Xaaj Maalik moo ko jëkk bind nee na xaw ma kan waaye man Sidi Xaaj Maalik du ma gaaral dogalu yàlla ndax nee na su ma gaaralul sa dogal amaana ma bijj ci sa ngërëm mu ne waaw man mu xeebu mii man mu xeebu mii di alaaji malik su ma taxawee ci buur bu rëy bële di yàlla di gaaral dogalam ba sama gaaral gi lan lay jëriñ te seet naa ba xam ne yow yàlla lu rafet rek mooy jóge ci yow koo xam ne nag loo def lu rafet la kon damay sëgg rek loo teg ci sama loos wi rek ma gërëm doomam ju baax ji saydi abou bakar ibnu cheikh haaji malik si ni rabbi qadayta فرضيت بالقضاء تحكم ما تشاء فحكمك مضى رضيت فرضيت بالقضاء لقد كون في قضيت فرضيت بالقضاء غريب غير في قضيت فرضيت بالقضاء لقد كون في قضيت فرضيت بالقضاء خلف غير في قضيت فرضيت بالقضاء لقد كون في قضيت فرضيت خلفنا ربي قضيت فرضيت بالقضاء لقد كون ربي قضيت فرضيت بالقضاء خلفنا ربي قضيت فرضيت بالقضاء لقد كون ربي قضيت فرضيت بالقضاء بزرقنا ربي قضيت فرديت بالقضاء لقد بي ربي قضيت فرديت بالقضاء تحكم ما تشاء فحكمك مضى برجنه من منازع فذاك غيري فوضت امري لك نافذين
ربي قضيت فرضيت بالقضاء تحكم ما تشاء فحكمك مضى من ربي وسما برام قضيت دوغل غلو لا نيه waaye faraditu kontaan naa gërëm naa bil qada ci atte bi taxkumu da nga atte yow yàlla maa tasha lu la soob fa xukmu ko sa atte nag mada aji wéy la xanaa kii kay bind yi benn la waaye góor ga ca kaala ga góor ga ca kaala ga ca mbaxane màkk ma ca mante yu bari ya Cheikh Hadji Mansour ibnu Cheikh Hadji Malick ne ayaa xaaliqi inni ilayka faqiru atubu wa arda ma qadayta jadiru يا غالبي إليك فقير أكون عسى ما قضيت به
nee na mi ngi leen di jéggulu ci lii muy bëgg a wax nee na defu leen lu bon nee na mbir mi moo laaj loolu nee na yonent bi rëy na seen pas-pas dëgër na nee seen pas-pas dëgër na seen yéene rëy na
nee na seen yéene rëy na seen cofeel dëggu nee na seen na cofeel dëggu na
moo waral lii nee na moo waral lii
nii la soobee yàlla la nee na nii nag la soobe yàlla waaye am na lu ko ci neexul nee na waaye am na lu ko ci neexul
benn bi nee na benn bi
fii ñu toog tey nee fii ñu toog tey
dañu koy war a yemale ak jàkka nee dañu koy war a yemale ak jàkka ëttu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ëttu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko taxalee jàkka ne kenn mënu ko tàkkaleeg jàkka
Euh, ñuy ñaan nit ñi ne ñuy ñaan nit ñi
góor ñi nekk ci biir jigéen ñi ne góor ñi nekk ci biir jigéen ñii ñu génn nee na ñu génn
suñu bëggee mbir mi yàlla def ci barke ne suñu bëggee mbir mi yàlla def ci barke
na góor ñi génn nee na na góor ñii génn biir jigéen ñi
jaamu yàlla nee na jaamu yàlla ci benn waxtu ci benn waxtu ci benn mbir ci benn mbir di ko ca mooy ne di ko ca moy yàlla du ko nangu ne yàlla du ko nangu kon nag nañu góor ñi may génn ne kon nañu góor ñi may génn ñaareel bi ci des ne ñaareel bi bi ci des bu ñu sañoon ne bu ñu sañoon kenn ku ci nekk kenn ku ci ne fëtëye lañ lay tegal ne fëtëy dañu lay tegal nga tegale sa ñaari tànk ne nga tegale sa ñaari tànk téen ceen waaye amul mënu la am nee na waaye loolu mënu la am ñuy ñaan ñuy ñaan ne ñuy ñaan
fafsaxu fafsaxu yafsaxillahu lakum yafsaxillahu lakum ngeen puusante yaatalante ne ngeen puusante yaatalante kenn ku ne ne kenn ku ne fa mu toll fa mu toll na fa toog na fa toog
place amatul ne place amatul
ñu may ñu loolu ne ñu may ñu loolu ñu yaatalante rek ne ñu yaatalante rek géewu waykat yi ne géewu waykat yi nañ ko soppi sàppi julli ne nañ ko soppi sàppee julli ndax ku kenn toogu la ngi fi ndax fu kenn toogu la ngi fi
kon nag defar leen ko ne kon nag defar leen ko ñi ci des mën a dem si ne ñi ci des mën a dandu si
defar leen ko ne defar leen ko
su ko defee ñi dem ci ñii ne ñii randu si
ñi ci gannaaw ne ñi ci gannaaw nañu toog nañu toog toog leen lillahi wa rasul ne ñi ci gannaaw toog leen lillahi wa li rasulihi
tan bii ci gannaaw nee na gan gii ci gannaaw rang bi rang gii ci gannaaw
dafa am ay kilifa aada yu fii ñëw ne dafa am ay kilifa yu aada yu fiy ñëw
foofu lañ daan toog ne foofu lañ daan toog yàlla def na sutura nag ne yàlla def na sutura nag mbooleem ñi fi toog mbooleem ñi fi toog ñoom ñoom a bokk benn wàccuwaay ci kër Seydou Hadj Malick nee na ñoo ñoom ñoo bokk benn wàccuwaay ci kër Cheikh Al Hadj Malick ma di leen ñaan nee na mu di leen ñaan ñi ñu àndandoo àndandoo ñun ñu àndandoo ak ñoom ne ñun ñu àndandoo ak ñoom yaatal ñooñu yaatal ñooñu ba bu ñu ñëwee ba bu ñu ñëwee am fu ñu toog am fu ñu toog ñi fi toog ñëpp nag ne ñii fi toog ñëpp genn njaboot lañ ne genn njaboot lañoo ñoom ñooy féexoo fu ne ne ñooy fénkoo fu ne di daje fu ne di daje fu ne di ànd ci lu ne di ànd ci lu ne di bokkandoo yi di fënd ne di bokkandoo it di fënd teraanga ji nag ne teraanga ji nag ñoo ko bokk ne ñoo ko bokk kon ne kon ñi ciy gan ñi ciy gan dañ leen yaatal nañu leen yaatal dafa déeyoog sëñ Maodo ma ñëw mu ni ma ci kanam nañ ma jox rajo bi ma way sëñ Maodo déey ko ni ko xanaa ñu def ko daarul xabib mu ni ko déedéet tamurru layaali kon wut leen ma ñu toppal di gàmm incha allahu waa sëñ Assane na nga ko gaaw a yóbbu ah ah sëñ bi nee na ku way mu way ku wayul it mu way si si te ma la wayal rek ma wayal la nee na bopp ma ko dàqal waaw ab bàyyi tam si saako ne ñoo koy aw mbooloo mi lu jëkk Sidi Aboubacar di ñëw dama nekk ci waxtaan wi bàyyi tam si yëlëb kalpeen génne ñaari junni ni ma sama doom ma ne ko labbayka mu ni ma bég naa mbég mu dëggu ci man kii maa la ko jox galagu rasulillahi loolu nag ëpp naa nëbb loolu ëpp naa nëbb teraanga dañ koy siiwal papa jërëjëf ahsin ila nnaasi kay tadfar bi wuddihimu falmuxsinuuna ahibaun lada albashari waaw nit ñi ku leen di jilu rafet rek ñu sopp la te yaa ngi ci yàlla la yàlla yokk a sopp di jaay sayidina muhammad abdou foo foo tollal tey إذ ساك قوله على الطلا لا تخاف الشر شر ذي الوخم لا عجب دقما قاموا إليه سراعا في في سلاحهم
ما يدعيه فاض إليه سراعا في سلاحهم مولانا وامر ثم أدوان كذا أتانا رشدان دودان كما العدل أتانا مولانا الله قوم فينا
الأدخل على
لا تخافى شر الوغم مولانا وامر ثم
للكذا عسد مودنا نارشتان دودان سما الأبلاد نبه قائلا قد لاح جدكم قاموا إليه سراعا في سلاحهم سيد الحاج مالك سي دفاي نتلي gàddaayu Seydina Muhammad départam ci Makka gaa ñi kub ca arrivéem ca Madina mu leer ñëpp ne waykat yee ko tànn du man man du ma tànn bunt ci nii mi dama naan ban bunt la waykat yi way fu ñu way ma jëm leen faa fekk waykat yi jóg ni naadaahum ma jóg ni naadaahum waaye li wér te wóor moo di bii daje boroom xel mu rafet mu ne ak boroom pas-pas bu sell bu ne mën na cee yokkoo yaakaar ku tëddoon ba guddi nga nelaw nelaw yi neex lool nga jekki-jekki gént nekk ci benn tànt lamp ya mel nii jurit yu baaxee nii tooge nii nga laaj ci biir gént gi ne tànt bi kuñ ko defal ñu ni Mawlaana Rasulillahi jikkoom lañ fay jéem a nettali ci bindu kan nga ne Cheikh Al Hadj Malick ku ko fekkee nga ne ay deritam ak ñiñ bokkal pas-pas gént googa boo yeewoo koo ko nettali boo amee soxla ni la ñaanal la dan ko am te géntunu waaye gàddaay gi li ci nit mën a xamee bare na waaye bokk na ci lu ci gën a yéeme waa Makka dab nañu rasulillahi ay kilomètres ni buñ ko jotee rey ko waa Madina gàttanu ko ay kilomètres ni bu egseenu roy ko déggoo li ma wax de waa Makka bi njool Makka yi gàddaay dab nañu ko ay kilomètres ni bu nu ko jotee rey ko waa Madina gàttandu ko ay kilomètres ni bu egsee nu roy ko ñëlee bi bi fatxi raa yi ñii bi dammi raa yi ñële dañ ne buñ ko jotee rey ko ñii ni bu yegsee nu roy ko te roy ga mu am solo ci bindu Cheikh Al Hadj Malick bis bi rasulillahi jëkki gisi Jibril ci la xamee ni dana gàddaay bis bi mu jëkki gisi Jibril moom njol Makka ci bés boobu la xam ne dana gàddaay xam nga ku ko xamal waraqatu ibnu Nawfal le 6 août 610 ca xaaru xiraa ca xaaji Malik ni digganteem ak Makka 3 kilomètres la booy dem Muna mu féete la droite fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Ramadan ci bisub altine la njool Makka jikk gis gan bi ñuy wax Jibril mu ne ko yàlla nee na nga jàng iqra sir xaari an baada ma kaana ummiyan illa tere nga doo liir mbind waaye bis naka tey da nga jàng mu tontu ne man du ma jàng ndax jàng du sama aada Seydi Xaaji Malik nee na faxattahu aw waxattahu li buluuxi ljahdi qaa'ilahu faqra wa qaala lahu maa zaaka min nuzumi maa zaaka min nuzumi jooji njol makka wax moo tax ci bindinu miimiya bi nga gis ñu yokk ci yaaw mutakallim min nuzumi dañ caa yokk yaa dégg nga de jàngal yow rasulullahi mu ne du ma jàng mu mbokkaat ko yoonu ñaareel ba mu sonn mu bàyyiwaat ko yoonu ñetteel mu daaneel mu jëkkanteeg moom jàng iqra bismi rabbika jàngal sa turu borom bu ca kanamee sabbix isma rabbika dégg nga de iqra bismi rabbika boo paree ci qiraatu bi sabbix isma rabbika iqra bismi rabbika bokkul ak sabbix isma rabbika kooku bu ko waxtu maye woon danaa ci dugg waaye waxtoo ko maye woon dama leen a bëgg a firil miim yi rek tey baytan baada baytin bayti bu daanu ñu dugg ci beneen bayti bu daanu ñu dugg ci beneen ba ba ma sëriñ bi laaj rajo bi rek man soldaar laa rek bu ñu ma nee ca front ba ma ne aywa wax naa leen lu jëkk muy ñëw ñu leen man aw may bët damaa miyob du ma gis loo ne ci jaamur laa yor déggu leen ko woon de waaw ma waxaat ko dama leen man du ma gis dama miyoo la ne fi jàmbur rek laa takk di ko gisee fasu jàmbur nag kuñ ko abal nga di ko tukkee loo dofe dofe boo ñibbee war ko delloo boo baadoo la borom nangu ko nangu ko cagam cag ca nga kengatu dégg nga de Seydina Muhammad bis bi mu gisee jibril ci la xam ne dana gàddaay bi mu tiitee dellu ca këram fekk sunu yaay xadijatu mi nga xam ni ci la ñu doon conférence démb ba mu ñëwee ni ko zammiloo nii sàng leen ma zammiloo nii sàng leen ma ba muy ñetti yoon soxna si sàng ko sunu borom ni ko yaa ayyuhal muzammilu qum qum qumi ji alif ak laam ba ca lay laa tax wa in talaahu alifun wa laamun fakfir waqul li yaqumil gulaam taqul laa tantahari lmiskina wa misluhu lam yakun illazina xumi ji allay la jàmm alif ak laam a tax ñu kasra ko wal amru mabniyun ala sukun kooku taxumaa jóg yow borom càngaay li jógal ñool makka ni ñokket ni inqadaa ahdu raaxati kon de jamonoy nof laay jeexal moo tax la raxata fi dunia wala najata min annas kenn noppalu ci àddina kenn du mucc ci nit ñi moo tax ku bëgg nof laay koo xulul yaa ko tooñ laqad xalaqna aki l insana fi kabadin tasliyatun min kalaamillahi takfika bul way góor ga ca kaala Cheikh Hadji Mouhamadul Mansour moo ko dénkoon sunu bàyyi di fi jóge barki démb bu bàyyi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Si nee na ko laqad xalaqna yàlla bind na axi yow sama mbokk al insaana nit fi kabadin ci coono tasliyatun ndëgër laaya ngoog tasliyatun ndimbala ngoog tasliyatun ak dalalu kala ngoog tasliyatun rapport a ngoog tëkk fii ka war na laa doy rapport boo xam ne min kalamillahi ma nga jóge ci waxu yàlla kon ku bëgg a noppalu yaa sonn dégg nga de njol makk ni inqada awaydu raaxati jamonoy nof lay jeex na waaye nag mu tiit ni laqad xashitu ala nafsi laqad xashitu ala nafsi laqad xashitu ala nafsi man kat jàq naa ci sama bopp ragal naa ci sama bopp lii ma gis tey masuma ko gis jëmm joo xam ne laaf waa ngay laal juróom-ñaari asamaan benn laaf bi di jaal juróom-ñaari suuf mu ñëw naan ma iqra sunu yaay Xadijatu jël responsabilité ni ko kalla abshir bul jàq bégal wallahi maa ngi giñ ci yàlla innaka la yuxzika allahu abadan yàlla du la gàcceelal mukk yow doo am gàcce téere yaa ngi laaj ni waaw lan moo tax njool màkk jàq Xadijatu mën a jël responsabilité dalal ko ñu ne nañ dellu ci alquran wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan lu ca topp moo tax xadijatun sakanat li taskuna ilayha moo tax xadijatun sakanat ah sunu borom nee na billahi maa man yàlla nee na maa man nee na maa xar ku góor maa xar ku góor génnee ci ku jigéen teg ko fële bu di xaritam nee na yow mi ma xa mi ma xare woon jigéen boo jaqee ba nekkatoo fi sa xarit booboo lay dalal moo tax téere yi ne jigéen suy bëgg ku góor bëgg ko fa mu dëkk la bëgg ndax ca la jóge woon ñu ne ku góor it buy bëgg ku jigéen bëgg ko lu bokk ci moom la bëgg moo tax ànd ba yàlla ni nañ ko def wa jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan nañ fa doxale cofeel ak yërmande dégg nga de jazakumullahu xayran kurus la de yaa ma ko joxe di rasulillahi yal na la ko yàlla yombal li nga ma may rek laa bëgg sëñ Maodo kurus yi ma ko bëgg ak téere dama koy collectionné xaalis xaalis moom bu ma ko kenn jox buñ ma ko joxee ma jaxase li ma doon wax lépp bu ko kenn dégg nag ba ñibbiwaale li nga yor dégg nga de laqad xashiitu ala nafsi njool makkaa ngi naan jàq naa ci sama bopp sunu yaay Xadija ni ko kalla abshir bul jàq de wallahi maa ngi giñ ci yàlla ni laa yuxzika allahu yàlla du la gàcceel alquran dëggal na Xadijatu alquran dëggal na xadijatu daf ko ni laa yuxzika allahu abadan alquran ni yowma laa yuxzi allahu nabiya walladina amanu bés a ngi ñëw di yowmal qiyaam yàlla du teg gàcce yonent bi du teg gàcce julit yi kon lam ko ni woon laa yuxzika allahu abadan alquran dëggal na ko ma dem de bul jàpp dëggal yàlla du la gàcceel nag innaka la tasilu rahima bokk na ci lu tax yàlla du la te gàcce yow foo nekk da ngay jokk mbokk jël leen ci not ndeke jokk mbokk day tax doo rus àddina ak alaxira innaka la tasilu rahima jokk nag wolof daf koo xamul wolof xamul jokk jokk ku la jokk du jokk may sa mayaakoon dug baax fay bor la ah sëñ Maodo jokk ku la jokk dug jokk may sa mayaakoon dug baax fay bor la sil man xataaka ki la dagg ni dootul la laal ni dootul joteeg yow dara soo bëggee baax bëgg a am martaba ca yàlla demal fekki kooka Cheikh Hadj Abdoul Aziz daka koo mënoon jëli ku ne kétt ni fétt aka ko mënoon jëli ku ne kétt ni fét ku ne kétt ni fét mu di la jëli di la raay ba nga ni neem ni neer
di leen ci may laaj wallahi
ne nan lay def ba nekk ku baax xanaa mu teet bépp mbir moo xam ni day ayibal laabal xolam dëgg ñëpp lillahi muxtasiban ci njokku yi ku ko dog fu mu toll tey ko dëgal ok
alaaja bàyyi si nee na رضي الله عنه وارضاه عن ابي
yaa tollu nëbb di muñ نفعنا الله ببركته ku toll tey bañ a tooñ ku tooñ mu baal ko li la bihi laay tey yéwénal